yi voté voté nañ juróomi yoon jëm juróom-ñaari yoon xëy na sax voté nañ fukki yoon yoon bu nekk dégg ngeen ko ñu ngi naan ñoom am nañ cent onze voix opposition am cinquante cinq cinquante quatre voix muy cent soixante cinq députés saay bu ñu compté ñu ne waa Benno Bokk Yaakaar ñi leen votel ñu ngi toll ci ci ci téeméer ak fukk ak benn opposition ñu ngi toll si juróom fukk ak ñeent muy cent soixante cinq or man dama xool gis ne am na ay députés yu manqué ci député yu manqué yooyu député bu ñu woowee Nicolas Ndiaye nekk député Benno Bokk Yaakaar nekku fi ma xool délégation yi de délégation bu ngeen ko déggee mooy député mun na absenté mu bind ci kayit ne député sangam bu teew moo koy voté ma xool délégation Benno Bokk Yaakaar gisuma fenn fu ñu bind ne député Nicolas Ndiaye wax na député sangam mu voté ko kon naka la ñuy compter systématiquement Nicolas Ndiaye nii la assemblée nationale di doxee nii la réew mi di doxee. ñu ngi sàcc sàcc vote sàcc xaalis sàcc milliard sàcc alal réew mi ci sàcc la ñu dëkk ba tax Sénégal bokk ci fanweeri réew yi gën a ndóol ci àddina tey waruñu fi woon ñëw daje ndax coup war constitutionnel ñu woon daje ndax war électoral ñu woon daje pour naan dañuy yokkal mandat président de la république Macky Sall li ñu waroon daje fii mooy ndax jiwu béykat yi mu ngi jëm ci béykat yi ndax xaalis bu ñuy voté fii pour njàng bi mu ngi jëm si njàng bi ndax xaalis bu ñuy voté fii ci wérgu yaram mu ngi jëm ci wérgu yaram bi lan moo tax accident yu bëri loolu moo ñu waroon dajale fii nit yi di dee ci accident yu bëri